et puis dafa yéex a commencé fi ne nii béykat su la xale bi lay omatal sa mbaam wala sa fas doo ko mun a doo ko euh, di di ne da koy jongal moo tax euh, véritablement tey am nañ nombre bi nga xam ne vraiment mun nañ ne satisfaisant. waaw dañ ko tollanti incha allah chaque année nañ ko def ba fii ak ñaar fukki bu nañ def ba vingtième édition nañ ko def incha allah loolu moom ñaan nañ yàlla def loolu chaque année nañ ko def loolu moom commencé nañ ko nañ ko def. xam nga Sénégal ñun lu ñu xam mooy suñu aada mooy euh, xale dafa war jongu <laughs> loolu mooy aada voilà moo tax euh, ñu développe jàppale jàppale xale yaa ngi dégg jooyu xale yi ñu ngi leen di yuuxu noonu mais métti trop nag dama sama yaram mu ngi daw fi nekk nii sax waaw mais dañ ko def jàppale leen jàppale waajur yi jàppale suñu mag suñuy yaay suñu tante ñi nga xam ne ñooy ñooy jur xale yi leen pour que wax dëgg yàlla mbir mun a yomb amul fay dara dañ ko def ñun ñoo jël lépp en charge dèjà sax xale bi sax su paree sax dañ ko jox benn euh, paracétamol jox ko banéocin jox ko Euh, kii Bactrim pour que mu mun a nga xam ne xale bi sax si këram la ko papam fajee du jar sax muy hôpital donc loolu lépp lañ jël en charge maanaam xale bi ba muy jong ba ba muy wër ñu nañ ko ci jàppale ba mu wër indi nañ onze euh, opérateur ñu ngi fi ak benn chirurgien pour xool su fekkee ne xale boo xam ne am na hémophilie wala am na beneen affaire boo xam ne am na ko pour ñu mun a xool naka lañ koy euh, rectifier. lu ñu def ngeen rek pour ñun du dara mais daal li ñu war a def daal maanaam opérateur yi ñi koy ñi koy def. li wala ñom def nañ ko ak ñom garab yi war jënd li wala jënd yëpp def nañ ko donc euh, xaalis bi amul solo même su ay millions aussi ay millions millions aussi ngeen jaral nañu ko wa du jaral jox xam nga niki mom euh, da ngay def so defé peut être nit ñi gisé da ngay def ñeneen aussi dañ jéem def donc motax ñun ñuy def rek pour pousser yeneen ñi encore ñu def loolu la rek mais waaw donc duñ leen ko parce que ku ne xam nga soo dëkkee ci dëkk juddoo fa màggee fa war nga xam ne dëkk bi am na lu la warloo parce que fi lañ màggee fi lañ juddoo fi lañ yaroo suñ papa juddoo fi suñ yaay fi donc xam nañu dëkk bi amna lo ñu donc euh, effectivement cours de vacances cours de vacances coranique euh, parce qu'en général euh, le plus souvent y des cours de vacances dans langue française mais nous avons de nañ xol ci ñu pour que yi les durant le mois de septembre. commencé nañ ko depuis le 2 et incha allah liñ ci bëggoon yëpp am nañ ko parce que ñu ngi ci pratiquement ay 400 euh, euh, élèves yoo xam ne pratiquement ñu ngi jàng ci école yi alxuraan di gërëm oustaz si di leen remercier parce que mën nañ ne kat ñoom euh, tout dañoo dañuy bay mais malgré sa ñëw nañ pour jàngal xale yi tous les jours waaw. parce que am na ñu bëri xam ne bëgg seen doom jàng alxuraan mais amuñu moyen. wala amuñ fu ñu organiser wu pour ñu dem jàng fa parce que euh, su doon am na ay cours de soir alxuraan a wax amul donc loolu am na solo ci xale yi day tax euh, euh, vraiment gis naa ne ñëpp engouement bi xale yëpp gis na ni dañuy sawar a dem sax pour xëy sawar a dem pour dem pour dem jàng alxuraan bi am na solo donc moo tax vraiment di gërëm ñoom ustaas yi fi nekk ngeen ñëpp wax dëgg yàlla ci jàppale bi ci jàppandal bi voilà donc surtout imam ratib bu ngay ñeen bi nga xam ne ci moom la njëkk dem wax ko mu wax joxoñ ñu ñu war a seeti يا اخي من هبه اللي الحمد لله لبسوتنا